bi maire ñëwee remplacé saa Saasum si mën na ci wetam di ko loon jàppale si yu bari. Mhm. ñu joxal ma bureau ci kaw. ah ñu xëy wàcce ma foofu yóbbu ma ci suuf ma ne ci suuf ah ñu xëy génn ma ci suuf yóbbu ma école saa Saasum si deux fois. ndeysaan foofu may fàttaliku sama benn xarit daam est-ce que xam nga ni mairie Medina bi. Mm. man douze Fall bii maa fi ëpp ay affectation ko yëpp dañ lay tey dañ lay yóbbu fii suba fële mais loolu loolu loolu la moo ko waral loolu. je dérange. mais mais mais mais si tu déranges mais si tu déranges mais mais le maire c'est ton ah, mais ñoo xam ne nag il doit t'aider. waaw am na loo xam ay compétence am la parce que li muy def li tax mu def ko man mënu ma ko xam. Mhm. mais li ma xam ba xam am na ci ñu ko jege ñoo xam te ni bëgg bëgg ñu ma gis parce que la ngay def te jaaduwul ci mbedd mi nga di ko ko nëbb man su ma toogee moom du ma ko nëbb saa bu ñëwee toog moom. bu daam defee lu yoon naan ko daam mii li mu def du lu yoon te dama ko def ci kanam ci kanam nit parce que bëgguma après lu koy lor mhm. man d'accord ma nga ànd ak maire añi ànd ak moom mais affectation moo ko waral waaw mooy li ma wax xam nga xam nga un agent boo nekk euh, ci service euh, nga jékki-jékki ñu jox la affectation da ngay dem foofu laal la ndeysaan ma ciy nuyu suma xarit dem si yàlla a mbay daam ku baax ku ma bëggoon a ngoog euh, ku ma bëggoon a ngoog mhm. Gora mbay fu ñu ma mos a yóbbu fekk na ma fa mhm. su ñëwee xam nga lu muy wax jàmbaar mu ñëw rek yii yëpp ay la de la affectation bi moom mu jàmm ça fait y a un an et quelque xëy boobu su ma ñàkk déggoo am na waag maire waa maire beeg maire ñu yóbbu ma école euh, école bi nekk champ de course su ma demee ci école bi may toog ci cours bi man cundum hmm. seen góor a mbay mooy def bu jigee cours cours yi muy def ñëw gaare foofu mais est du manque de compétence moo tax hmm. compétence waaw mooy moo tax joxuñu la jo jo joxuñu la yenn yenn yenn poste yi maire dafay faral di wax ni amul kenn koo xamante ni bi ma la jël sa CV laa laaj moom day faral di wax loolu lu ci bari danaan amul kenn ku ma jël laaj la sa CV moom xam na li mu bëgg xam ne liggéeyam daf naa la dafa ma nangam dafa ma nangam te man sama loxo ci kaw bi ma dugg see ci mairie Médina ba léegi nii mosuma fay lekk dërëm kenn du carte marché du OVP du ci bâtiment yi du ci moom sax lu ma yónni ma lekk ko kooku ñëw ne ko duus lekk na li ma yónnoon du lu ma ko sàccet du lu ma ko fen man sama loxo dafa seen wecc mais dama ñu la mhm. xam nga maire tey maire du mbokk dafa yëlif waa Médina bépp mhm. am na Dame Scipion ak kii ak kële koo xamante ne tey jii nii man dama leen dranger te moom xëy na buggul man ma frustré moo gën ñooñu frustré parce que am na ñoo xamante ni gis ma ak seen boutique la ñu yamalee duus te ñooñu noonu kaay ma la la ñuy nëbb. ak la ñuy koy feeñal. maa koy feeñal te kaay gis nga daam ni ma gis nii ñu ci ëpp ëpp ëpp laa wax yàlla ma yàlla baal. Mm-hmm. nit looy am lu nekk rek na nekk loo xamante ni dafa nekk lu loo xamante ni dafa war a ñëw ci yow. d'accord mësuma seeti ab sëriñ te am na ci ñoo xamante ni boo duggee seen salle de yi seen siwa yi nga fi fekk fii dañu fay bind lundi trois fois <laughs> mercredi deux fois fii suuf marché fee suuf géej. fii suufu almer fii bind fi turu meer. fii bind fi turu meer am na ñoo xam ne sax da jàpp gaa gaa yi si si bi dañuy liggéey meer bi. ñu ci bari mënuñu yëkkati seen loxo waat ci yàlla nañu woote réunion ñu ci bari ñu woo leen leen kaay ngay ci yàlla kenn mësuma koo saf. man léeg-léeg ma xool ndeysaan ma yërëm kon maire bu ko 500 employés safee kon. non de ndeysaan wax ma 500 yëpp am dafa am ñu ko bëgg ci biir. Mhm. la mooy tey ji barab la boo xam te ni njariñ moo fa nekk hmm. te njariñ la fa nekk kenn ku ne da nga caa bëgg a ëppale comme da nga bëgg a ëppale nag di nga def say débat déeb hmm. mais pour le waa Medina ni ñu ko bëggee ak waa ni ñu ko bëggee bi mu feebaree ak bi mu nekkee prison nit ñi dañu doon daw di yëkkati seen àll di mu ah. jóg hmm. ndax cofeel relation bi am ci ñoom dafa mel ne ñu bokkal ndeeg bàyyi d'accord mais dafa am ñoo xamante ni seen bopp gëmuñu yàlla gëmuñu yent bi mais parfois da nga koy xool da nga koy yërëm yaram bi dafay diis dafay sonn da ngay jàpp gars yi dañ koy sëf. waaye dañ ko naj dama la xola eh, xam nga fu eh, ñuy def eh, bàyyi leen sunu maire bi. dañ dañ koy sëf ba mu diis. gan man maa ko wax ngir yàlla nañu teggi li ñu koy teg parfois doomu jàmbur la. d' accord d' accord doomu jàmbur la. doomu jàmbur la c' est ton frère aussi ñu bàyyi di dox ci digganteem ak i bokkam. lu ñaaw lu ñaaw boo ko xamee sax nga bañ koo wax. dafa mel ni li ngay def ni cri de cœur da am lu la naqari. moom ngay génnee moom lu ma naqari daam. waaye